di nuyu bu baax kilifa diine nekk ci réew mi yëpp kilifa aada yi waaye tamit di ziar mboolem sëriñu daara ak donga daara te sàkku seen ñaan bu baax a baax mbokki seen émission a si daara yi ngeen baaxu si ànd ak seen mbokkum taalibe Mamour Cissé ñi dem nag fépp fu daara am rek incha allahu taala li si daara dina fa dem waaye tey ji nag ñu defat déplacement ñëw fii ci euh, Cambérène fekk euh, ci daara Seydina Limamoulaye fekk ñi nga xamante ni ñoom ñooy jàng alxuraan di suñu ay yaay waaye di suñu ay maam di suñu ay mag wax dëgg yàlla di sàkku xam-xam fii ci daara ji ñu janook soxna Oulimata Mbaye moom mi nga xamante ni mooy présidente daara ji fa fas yéene seq ak moom waxtaan ngir jëmee ci wàllu daara waaye laataa loolu ma bàyyi ko mu nuyoog askan wi ñu seetaan bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin mbokki julli di ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonentaam sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi leen di nuyu gën ngaa di nuyoo di jiital ci nuyoo bi sunu xalif général Baye Abdoulaye Thiaw yàlla na fi yàgg te wér lool ah di nuyu nag sunu responsable moral Serigne Cheikh Mbacke Laye di ko ñaanal jàmm yàlla na ko yàlla defal gu gi fan gu ànd ak wér ak wérle ndax lii yëpp bu amee moom moo ko waral kon moom bala ñoo wax dara ci mbiru daara ji rek dañ koy sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla ak ñi nga xamee dañ koy jàppale ak i mbokkam yëpp ñoo ngi leen di ñaanal yal na leen fi yàlla bàyyi. jërëjëf soxna Oulimata mbay macha allah kàddu yu nuyu am na solo lool xanaa rek uh, di wax ci fi nga daanelee rek muy xalifa uh, de Layènes muy Serigne Baye Abdoulahi Thiaw yàlla nag suñu borom jàggal lool te wér ak mboolem xalifa yi nekk ci réew mi yëpp. Uh, ñu dugg rek ci biir waxtaan bi fan la daara Seydina Limaamullahi sosoo ba agsi bi tey. bismillahi rahmaani rahim daara Seydina Limaamu nag histoire la ndax booba paparaan mi ngi mi ngi fi nekk. xalif général la woon paparaan boobu mu ngi dund ci xilaafa Baye Seydi Thiaw la daara ji doore ndax yàlla dafa dogal rob dafa amoon fii ci dëkk bi paparaan dem si rob bi bi mu demee si rob bi nag a ah, jigéen xam nga Cambérène dañ fiy euh, tere tëgg di fi tere fecc waaye nag jigéen ñi dañ daan nëbbatu di def seen tuur alxemes bu nu demee di def seen tuur taar seen rajo a ah, yenn saa seytaane saytaane ñu bëgg faa nekk di dakkas loolu nag paparaan dégg ko ca kaw armeel ya daal di aalu daal sama dëkku maam bii tàccu laa fi dégg sama dëkku maam bii dafa ñëw rek convoqué waa dëkk bi chef de village chef de quartier yi autorité dëkk bi yëpp mu convoqué leen fii ci péréwo bi ñu waxtaane loolu ndax fii yar moo daan tegu ci ndigal lu fi jóg yar moo ci daan tegu sëriñ Cheikh nag yàlla dimbali ko mu àndoon ci ànd ba waaye dafa ni moom épreuve de force dafa jeex ci àddina léegi nag daal di wut fukki xale ak ñaar ñoo tàmbali daara ji mu ni leen léegi dama woo leen ni leen dama bëgg ñu def ndey dikke diine. ci ban année lañ lañ lañ sos daara ji. en en 86 ci la amul fukki xale yoo xamante ni daf leen woowoon pour ñoom ñu def ndey dikke diine. mun leen ndey dikke diine bi nag kenn ku ne dangay indi sa kaye ak sa bic bu ko defee ñu jàng fa ñu jàng fa alxuraan taal attaaya du am benn frais ñu def noonu di def noonu di def noonu ba en quatre vingt nag ci la daara ji nag commencé nag am ampleur ndax ko gis lu baax rek da da ngay da ngay bëgg a dem ci lu baax loolu ci la nag dëkk bi nag riire nag ñun fekk na boobu ñu ngi ci centre social bi ndax boobu ay femmes de développement lañu ñu ngi nekk si cuub bi ak couture bi di ñaw foofu waaye sunu monitrice ba fa newoon ni kon ñun àllarba ñun du duñu def dara day ñëw rek verser toog nañ woo sang bi fekk moom mu gañe benn marché sa ci centre social bi di defaraat sant social bi biñ ko woowee tam mu ni man awma ci benn ndigal loolu da ngeen di dem ci samay kilifa ñu ni ko kan la ñuy dem mu ne damay dem leen ngeen seeti bàyyi Ndiine lu mu wax rek bu ni woon tey jii ma commencé tey jii damay commencé. ñu dem daal daara ji moom ko sos ndigal ndigal ndigal ndigal moo ko lal bañ demee tamit bàyyi njiin daal di koy woo daan ni loolu jigéen ñi bëgg dama bëgg nga jàppale leen ci bis booba la la laxasoon nag ni man benn nit sax bu ma ko fekkee ci daara ji dinaa ko jàngal te kenn fayu ko ci dërëm 86 ba deux ba 2018 bii may wax ak yow ndimbalal yàllaa ko fi fekk kenn fayu ko dara ndax moom ba muy commencé nee na amu leen sama fay yàllaa am sama fay kon yàlla moomu mu jiitaloon ci sunu diggante ak moom yàlla moo ñu uutu ci moom ñuy ñaan yàlla moom yàlla nañ yàlla nag fi gën a bàyyi te gën ko suturaal te gën ko teral ci barki Maadi yoog Isaa waaw foofu daal la daara ji sosoo nit ñi ñëw gox yi ñëw mujj gi àddina bi yëpp riir di wuti daara ndax daara ji rek benn cellule la daara ji am na sept cellules yoo xamante ni ñi ngi ci ci ñi ngi ci région bi kon ci lool nag la commencé ba nit ñi nag kenn ku ne ndax lu baax ku nekk ko bëgg waaw yemul ci jàngal ñu alxuraan kese ndax bitu bitu daara ji mooy alxuraanu karim jàng sa diine ndax biñ njëkkee taxaw dafa ne ndax njàngum gumba ngeen bëgg comme yéen mag ngeen njàngum gumba moo leen jaamoo yàlla ngeen bëgg am loo leen gis xam ñu ni ko ñun danoo bëgg téere yàlla bii luñ ci gis ñu xam ko mu ni bu soobe yàlla boo leen yàggee te daw leen di ngeen ci xam dara loolu nag lan nekkee moom mii macha allah. ba tubaarkàl la am na ñoo xamee ni fi mu ne nii jóge nañ fi di jàngale ji am na ñoo xamee ni macha allah euh, ndaxte jàngale ci sax am ci dara sax bénéfice la waaye li gën a nekk bénéfice mooy nga xam sa diine li gën a nekk bénéfice mooy nga xam yàlla mi ngay jaamu noo koy jaamoo li gën a nekk bénéfice ndax fii ma lay waxee yëpp ay commerçante ñoo fi ne ay jaaykat fi ne te kuy jaay war ngaa xam sa diine lu mu la tegtal ci sam njënd ak sa njaay loolu moral la boo xamee ni moom mii bu ñu jàngalee alxuraan ba kenn ku nekk tari daf ñuy defar ay moral ci sunu diggante ni ñu war a muñe ni yàlla santaane ñu muñe ka daf ñu koy jàngal jàngal ñu sunu diggante ñun ñii sunu diggante maanaam ku fi am wujj tey jii ni nga war a doxalanteeg moom ku fi am doom ni nga war a doxalanteeg moom defar daal sunu àddina ci gàttal waaw kon ñun njàng mi fonk nañ ko fonk goo xamante ni bisu alxemes ak altine la ñuy jàng waaye bu trois heures jotee kenn ku ne loo jàppoon bàyyi nga ko ñëw nga ngeen di dundee njàng mi ak liggéey bi maanaam dégg naa nga wax ne ñi fi nekk ay commerçant lañ ñëppay jaay léegi nan la ñuy jaayee ba pare euh, di jàng lan mooy programme daara ji nan lay tëralee ñoom ci loolu ñun alxemes la ñuy jàng trois heures ba six heures dañ koy doon liggéey daal jour alxames moom da ngay teel a wàcc waaw da ngay teel a wàcc ñëw jàng si fi mu ne nii amatuñu jotu nekk fii ci ëtt yi di waxtaan ak a kii ku ci wàcc rek jël nga sa téere alxuraan yaa ngay nafar li nga xamante ni moom lan la jox waaw jàng mi daal wax dëgg yàlla macha allah ñun ñun daf ñoo yokk li ma ci dolli bëgg rek yàlla na ko ci am lu kawe suñu njort ci barkeb alxuraan uh, ba tey yaaboy ñu wéyal suñu waxtaan ak yow rek uh, ñu seetlu ne wax dëgg yàlla fii fekk nañ fi ay mag fekk nañ fi ay xale mm-hmm. ñëpp ak fii sàkku xam-xam mm-hmm. waaye ndax gox bi nga xamante ni uh, gox yi nga xam dañoo aju ci waa kër Seydina Maam Limaamu ci mel ni Cambérène gi ñu nekk mm-hmm. ak it Yoof ak Ngor xeet yu demee demee noonu ndax ñoom ñi ngi aju ci euh, di xirtal seen njaboot ci jàng alxuraan. waaw ñoom ñëpp dañoo xirtal seen njaboot ci jàng alxuraan gis sa may mun a caw ma male toog doomu Chérif Abdoulaye Thiaw la ñoom ñëpp ñi ngi ci daara ji du moom kese dama ko kese mais axlu bayti bi yëpp seen njaboot ñi ngi ci daara ji ndax daara ji dafa ëmb daara ju mag ëmb daara boo xamante ni ci suuf la ne dafa am préscolaire ak élémentaire waaw xëy na feet bi moo tax fekku leen leen fi am nañu ay élèves préscolaire ak élémentaire te yëpp ci alxuraan la ñuy jàng ak boole kaak ak français. te kenn fayul waaw te kenn fayul. wax yàlla loolu lu jafe la wax. dëgg yàlla jamono toll nii ñi dajale ay nit di leen jàngaloo alxuraan ngir yàlla rek yàlla rek tax te fayeku leen lu jafe la. dëgg la de waaye it te fekk nañ fi mbooloo mu bëri. Mhm. yéen it lan moo leen war lan ngeen di warloog daara ji maanaam ndax du ngeen fi ñëw rek téye seen téere ñi def seen xam-xam rek ngeen dem. Mhm. nit ki moom lu nekk nit nit kese am na loo xam ne xel a koy dawal. Mhm. lan mooy seen taxawaay ci daara ji budul jàng ñun li sunu taxawaay ci daara ji social daf ci bokk ndaxte dañuy dimbalante am nañu kees goo xamee tamit sàkkaat la ndax Seydina Limaamu Mahdi alayhi salaatu wasalaam moo ko tëral moom lépp loo fàggu da nga ciy génne zakkaat zakkaat bi dafa am kuñ ko dénk waaw moom mooy mooy lépp loo xamee ni daal dafa jëm ci sàkkaat am na luñ ko dénk am na tam beneen kees boo xamante ni social la ndax dëkk bi boo fi newee da nga war a xool ñi néew doole nga jàppale leen xool ñi feebar nga jàppale leen te loolu ñun dafa bokk ci sunu warugar ndax danoo jàng ba sëriñ bi xamal ni ñu dimbali nit ni mel loolu ñu xam ka wut suñu ñaari kees bii zakkaat la bii social la alxemes bu jot dañuy sàkk ci kees social gi di ci dimbali borom ordonnance yi am na ñoo xam ne duñ jàng ci daara ji bërki démb rek fii joxe naa fi vingt mille yoo xamante ni kooku jàngul ci daara ji mais keneen moo indi tawatam fii ci daara ji euh, wax ni mu mel wax ordonnance yi wax rajo yi mu war a def ñu génne quatre-vingt mille jox ko waaw loolu xaaru leen ci kenn xaaruñu ci kenn am nañ tam événement boo xamante ni ci koor gi lay lay lay lay nekk incha allah xam naa loolu dinañ ci ñëw ndax it bonne volonté yi nekk biir yoo euh, biir Cambérène ñi ngi jàppale daara ji ñi ngi ñi ngi jàppale nag hmm. bonne volonté yi am na ñoo xamante ni ñi ngi jàppale daara ji ndax daara ji képp koo xamee ni rek sa jabar mi ngi ci am nga ci mbégte ndaxte dëgg yàlla la yàlla waroon waroo woon ak yow daf la teggeeku ndax xam nga am na loo xam ne boo ko jàngee kenn du la ci soññ kenn du la soññ ci kaay julli kenn du la soññ ci jëf ju baax kenn du la soññ ci lo mbir moo xamee ni ci yàlla la jëm looloo tax sunu borom kër yépp dañoo am fierté kontaan ci Serigne Seex Mbàkke bàyyi ko ak ñun xam ne alxuraan rek lay def ci ñun ak addis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak xutba Seydina Limaamu Mahdi alayhi salaatu wa salaam yi nga xamee ne bàyyi na fi daara nag murit tiijaan xaadir ñëpp ñoo nekk fii mais kenn du leen xàmme ndax loolu moom la jullit war a xam kenn xàmmewul fii ku fi murit kenn xàmmewul ku fi tijaan ñun ñoo bokk lépp bokk bokk yàlla bokk yonent bi bokk lépp waaw loolu daal mooy dox si daal macha allah soxna Oulimata mbay kàddu yi leer na am na solo lool ba tey rek ñu wéyal waxtaan bi euh, li ñu la bëgg laaj mooy lan la daara ji di dund ci jafe-jafe. daara ji nag dina dund ci jafe-jafe ndax xam nga ni ñii tey jii ay mag lañu laaj nañu ku leen dimbali waaw laaj nañu ku leen jàppale waaw te nag ñun sunu ngor du nu may ñuy dem di taxawaalu fenn ndax kii ñu àndal dafa taxawaalu fenn yarewuñ tamit ñuy dem di taxawaalu fenn. yàlla def na nag ku ñu bëgg a dimbali nag ci daara ji ngay ñëw te ñun dimbalal yàlla dinañu fekk ci daara ji macha allah dinañu fi fekk ndax ku nekkal yàlla rek yàlla nekkal la waaw. jërëjëf soxna Wuli Mata macha allah réponse yi am na solo lool ba tey rek ñu woyal waxtaan bi ndax it euh, tey nii wax dëgg yàlla gis nga ne dangay gis mag moo xam ne danaan man damay rëccu mhm. ñu ne ko lay rëcc mu ne su ma démb doon tey su ma nekkoon tout tànk dinaa demaat jànge moo ne balaa moo doon dëgg nag ci moom ah, ngir yàlla bu julee euh, njabootam mhm. war na leen mën a dugalaat ci alxuraan mhm. ngir ñoom it ñu bañ a rëcc alik naka ngay gisee ki ne man damay rëcc te jël doomam sànk ko ci nasaraan si ba euh, li li muy rëcc moom moom tegu ko doomam moom kooku rëccam du am solo réccu naa lu tax jàngul ma alxuraan réccu naa lu tax sama doom jàngul alxuraan ba pare jël sa doom yóbbu ko ci nasaraan bi jël sa boppit xam nga ni lii wax dëgg yàlla ku ko am war nga nag dëgg nag benn bis bi nga xamante nag ci semaine rek la ñaari fan la muy altine ak alxemes nga wax dëgg yàlla nga nag jatang sa bopp nag ñëw jàng si fii nag ci alxuraan ji. ndax yëg ne alxuraan mi ngi def dara ci nit. mi ngi def dara ci nit. Hmm, lan lay def ci nit ndax li muy def ci nit dalay sellal. alxuraan ci boppam day def jikko yu baax ci yow waaw alxuraan ci boppam maanaam daal lépp nu ni ma la ni ma la ko mën a waxee daal da dafay dafay dafay mbir moo xamante ni boo ci duggee rek yàlla da lay ubbi. kon daal ki koy jàng ak ko dul jàng. bokkuñu bokkuñu hmm. te duñu yem bu mukk kon ñu ngi soññaat bu baax a baax sunu wayjur yeeg sunu maam yi ñu gën a bàyyiwaat xel ndaxit Euh, def nañ fu ne émission waaye tey bi ñëwee fii nii li fi gis mosuñu ko gis ndax euh, sa moroomu maam wala sa moroomu yaay ñëwaat laxasaayu am xolu muñ ñëw toog jàng alxuraan defe naa lu jafe-jafe la ci mm. àdduna ñu ngi leen di ñaanal bu baax nag euh, fi ñu bëgg daara ji egg fa yàlla na suñu wax ne Serigne Touba nee na man kaana jaahilan bi fardihi walam yas'al fa nafsuhu abada wa zulam leen képp koo xamante ni da ngaa say farata maanaam li war ci yow nga réeree ko te mm. jéemoo ko laaj jéemoo ko xam ah na nga xam ne yaa sa bopp kon ñoom dañoo dégg aaya boobu daw ñëw mm. te it waxaan na fasaari'u lil hilmi mushiniina na naawina wajhillaahi ajmaina nee na comme ko xam lu baax ngir jëfe ko dafa jafe lool kon day yell euh, nga lu ci bu baax kem loo ci mën a am rek nga jël ko ngir yal rek tax <coughs> waxaat na nag wa man naxaakumu ila taallumi fa huwa xalifatul laynul mujrimi leen képp koo xam ne na daa jug ngir tere leen ngir ngir xamlu li ki mel ni nga euh, nekk ak sa yaay naan ko yaay yow jàng wees na ci yow wala yow sa euh, nga nekk ak sa doom naan ko du la dugal ci daara ji ngay tardé ne nga xam ne kat yaa wuuti seetaan mi nga xam ne yàq rek moo ko tax a jug te boo lëggee lii doon sa mbugal moom xam nga ko euh, naari jahannama jërëjëf soxna Oulimata Mbaye waxtaan bi am na solo lool xam naa rek li ci des dañ koy àggaleeg sëñ Cheikh léegi nga tàggatoo ñuy seetaan jërëjëf ñoo ngi tàggatoo di woote waat ñi nga xamante ne nu sàggan ci kër yi nañu ñëw jàng si ndax daara ji yemul Cambérène daara ji mi ngi Dakar mi ngi Caaroy euh, Géej mi ngi Yoof mi ngi Géejawaay mi ngi Tëngéej kon képp koo xamante ni bëgg nga jàng yàlla tax ñëwal nga jàng si moo gën toogaayu ëtt bi doo xam dara ji sa borom boo lëgee rëccu rek lay jur te bala nga rëccu nag nga ñëw fii ci daara ji nga xamante ni sunu euh, euh, sëriñ bi nga xamee ni mooy sëriñ Cheikh Mbacke laay jiite ñu ah man de nee naa leen képp koo xamee ni ñëw nga ci daara ji dama jëlale rek sa diggante ak sa borom kër waaye ñi fi ne ñëpp seeni xariti borom kër lan ndax lan ndax moom mii li mu ñuy jàngal ci suñu diggante borom kër yi daara ji dafa am ay yu sew sewaan yoo xamante ni kenn mën la ko nettali ci biir waa am maanaam daal lem la bu ñu booleek euh, suukar soo xamante kenn mën la ko nettali ci biir ndax li mu defar ci kër yi moo ëpp waaw ñu ngi lay jaajëfal bu baax tàggu nag mbokk jullit yëpp mm-hmm. di leen xirtaan nag ñëpp daal bulul daara jiitam daara ju waay gis te xam ne daara la ah nga yóbbu fa sa njaboot yóbbu fa sa doom wala nga demal fa sa bopp ñoo ngi koy ñaan julliti yàlla yëpp di leen ñaanal yàlla yéen tamit yàlla na leen yàlla jàppale ndax lii ngeen di doxkat day encouragé nit ndax fii ngeen ñu fekk tey jii même boo leen ñu fi fekkul woon sax ñun yàllaa ñu tax di def waaye nag lii dafa bokk ci loo xamante ni day day day waree mbiri sunu borom. day wane mbiru sunu borom kon yéen ñi nga xam ne da ngeen si jàpp ba ñëw fii ci ñun ñii ci daar daara Seydina Limaamu bii nga xamante ni moom jàngul bindul yàllaa ko yónni bay laay jàngul bindul yàllaa ko yónni ngeen ñëw fii nag tànk yi ngeen fi ñëwee yàlla na leen ko yàlla gungee noonu ba ngeen àgg seen émission bi yàlla na ko yàlla jëme kaw ci kanam ak kanam ak kanam yomb na yàlla mën na ko yàlla nañ ko sunu borom ba defal. allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam jërëjëf yàlla yow it waaw waxtaanal lool tont gi leer na lool ah. tont na sant gi moo ko yàq mbay moom bi nga sant moom moo ci xaw a dewaa danga waroon a sant Cissé rek kon ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci ah. waxtaan wi ak jàppandal gi ak yaatal gi ah, xanaa rek li ci des ñu ànd kook eh, sëñ Cheikh Mbacke laay moom mi nga xam ne wax dëgg yàlla defe naa bu maamam teewaatoon ci tey jii ni tooginam kon du ko soppi kon sëñ Cheikh ñu koy ñaanal bu baax a baax a baax a xéewlu gu yaatoo yaatu yaatu yaatu ba lim naa liggéeyal maamam bu tedd boobu yàlla suñu borom jagleel ko ko xéewal ko ko am ko li kawe ci njortam incha allah laataa ñoo dem ci tarim alquran bi rek sëriñ Cheikh Mbacke Laye nga xam ne tey jii moo waral lii lépp di ko ñaanal bu baax moom it mu yàgg fi lool te wér waaye te ma nuyu ko gannaaw laataa moo nuyu askan bi bisimilah sëñ sëñ Cheikh Mbacke bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin mbokk yu tedd yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di ñaan ci yàlla mi am jàmm ak sutura yàlla na nu ko boole defal ak foo ay mën a nekk. jërëjëf Serigne Cheikh kàddu am na solo lool euh, li ñuy lay njëkk laaj rek mooy nan la sa maam bu tedd ba daan dundee euh, ci laaj bu tedd boobu xam nga bu ñu nee samaam maam ju tedd ji nan la doon dundee alxuraan dañ war a xam kooku mooy kan. kooku mooy limaamul mahdiyu alayhi salaatu wassalaam mi nu jàngoon ci téere yi yonent bi waxoon ne mu jug jamono mahdiyu dana feeñ ñu laaj ko ne ko kooku ci ñan la ndax boobu àll yu moo ko laaj nekk ci ñun la wala ci ñeneen mu ni mahdiyu ci ñun la ni ma tijjee noonu lay tëjee kon kooku moo woote fii ne ajibu daayallaahi ne jaam yàlla yi ñëw leen ñu wéetal yàlla a ah, moom nag li gën a yéem ci mbiram mooy jàngul te bindul waaye yàlla dogal na xam-xam bi ci dënnam xajul ci téere ah moom la ñu wàcce woon ci moom alquran démb alquran jooju nag moo feeñaat ci moom tey xam nga koo xam ni jàngul te dafa fekk jëmb joo xam ni yow jàngoo dara mu teg la loxo rek nga dal di jàng alquran loolu moo doon ay mojisaatam bokkoon na ci kon nag limaamu moomu nag e, mbooleem lu mu nu wax du moom lu mu bindal boppam ni yonent bi daan def ba mu feeñee démb rek mooy su fekkee ni xibaar ñëw na dafa kaa wax ñu jàngkat yi dañu koy yaxal ci langu arab noonu la doon dundak ñun e, loolu nag am na ñaar fukki at ak juróom benn moom la def ci àdduna soog a wuyu ji boroomam mu bàyyil nu fi nag alxuraan dal duñu ci xiirtal ni munu ci xiirtalee mooy boo demee ci muqaddimaam li mu dénkaane dafa ko def juróomi ponk bu jëkk bi daf nu jàngal ko yàlla ñaareel bi mu wax nu kan mooy yonentaam ñetteel bi mu wax nu lan mooy alquran naka lañ ko war a jàng mokkal ko ñeenteel bi mu wax nu kilifa diine yi nan la ñu war a mën a nekkee ak ñoom juróomeel bi nag mu ni mboolem jullit naka lañu ñu war a dunde dund gu sell kon limaamu lii mooy baasam yow mbokk mu tedd mi. macha allah si Cheikh kàddu leer na am na solo lool kon alquran mu ngi noonu ci màggaayam ak ni ko kilifa diine yi nekkoon ci réew yëpp fonk woon mhm. ah, ñu wéyal waxtaan wi rek ah, xam nga réew moo gis dafa am lu ñu tudde dustuur mooy loi boo xam ni dañu koy tënk ngir nit ña jaar ci anarchie bañ a am yàlla nag subhaanahu wa moo bind ay jaamam waaye bi mu bindee ay jaamam yonente ba jëkk a ñëw téere yi fi jaar yépp ñooñee yonente bu mu doon boo fi jógee sa téere fay na waaye alquran nag mooy mujiza xaalida moom bi yonent bi mujj ñëwee ñu jox ko alquran xoolal mbooleem la jiitu woon ak lii ñëw lépp ñu tëxëñ ko ci alquran léegi nag sunu borom ne ku atte woowul ci alquran sa dunda du neex wa man arada an dikri fa inna lahu maishatan danka wa naxsuruhu yawma alqiyamati ama yàlla nee na lii ma tëral ku ci atteewul sa dund du neex kon ñun bu ñu bëggee am jàmm dañuy jëfandikoo alquran ndax li yàlla bëgg yàlla bind nit te moo xam li koy jariñ moom mi xam li koy jariñ nag loolee moom la dëxëñ ci alquran ni nu war a dunde dunde gu sell pour bu ëllëgee ñu am ngërëmal yàlla loolu mooy alquran gis nga dama wax ni réew mii di Sénégal diine rekk mooy mën a jiitu leneen topp ca waaye leneen du jiitu mukk diine di ca topp bu ko defee rek musiba am kon nag alxuraan mooy baasu lépp moo tax mag ñi fonkon ko fonk goo xam ni kenn mënu ko wax sax ci làmmiñ ndax seen dund moo doon alxuraanul karim moo tax ñu bàyyil nu alxuraan ñu bëggoon ko ba pare nag xertal ci njaboot gi mbokk mu tedd mi jërëjëf Serigne ah ñu seetlu ne Sénégal wax dëgg yàlla fi jamono toll nii ci la alxuraan gën a euh, nit ñi koy mokkal mm-hmm. loolu day wax ji yàlla naan moo koy sàmmal boppam kon mm-hmm. loolu lu wér la waaye est-ce que gëdd gi euh, ñooñu état war a jox alxuraan ak ñooñu waa alxuraan ndax jox nañ leen ko dafay des noonu laa la ko mën a tontoo waaye nag xam nga nit ku ne loo xamul mënoo ko jox gëddam te loo musul doo xam cafka la alxuraan faw nga mos ko xam ko man ko jox gëddam ki ñu ko wàcce woon ci moom xam nga ni Abdullah ibn Mas'ud yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa toog bis ne ko Abdullah jàngal ma ko ko ne ko yow la ñu wàcce woon alquran ci yow mu ni jàngal ma ko dama bëgg keneen di ko jàng ma koy dégg kon loo ci déggee gis nga am na ñoo xamante ni jàng nañu alquran xam nañu li mu saf mooy xam nañu li muy firi ba boo koy jàng du ñu ànd seen sago am ko xamante ni xamul sax li muy tekki waaye dafa sopp alquran ba boo koy wax donte la xamul lu muy tekki xam na ne lii du waxu nit waxu yàlla la ba tax na loolay day doon leer dugg ci moom am koo xam ne nag da koy jàng rek da koy jàng rek ci làmmiñam waaye gis nga lii yéem mooy dañu toll ci jamono boo xamante ni tey la alquran ba a bari am ay jam yàlla yoo xamante ni alquran yitteelu leen waaye daraja mu nga ak ñoom bu ñu fi jógee ñun ne nañ leen wàcceel alquran te ñoom ñooña ba ñuy dund fonku ñu alquran xam nga loolu lu yéem la te ñëpp a koy def tey wàcc kaamil yi ngay dégg yëpp ay xewit la ay xewit la waaye su fekkeen su fekkoon ni xam nañu valeuru alquran fu nu koy jàng kenn du yëngu ndax kàdduk yàlla te yàlla nag buy wax ñëpp ko war a déglu am déet yàlla buy wax ñëpp ko war a déglu moo tax réew mi man day jàpp naa ni ñu ci bari dañuy jàng alxuraan di ko lool rek waaye laa alxuraan bu ñu ci nekkoon rek jàmm am ci réew mi. macha allah sëñ Cheikh kàddu yi leer na am na solo lool ba tey rek ñu wéyal waxtaan wi ndax jullit bi war na xëy bis rek toog ta du jàng alxuraan. dama wax ni ku ko man ku ne. waroo xëy te jàngoo alxuraan. ku ko man ku ne. ku ko manul ku ne. boo xamee lu alxuraan di jariñ war nga déglu kuy jàng alquran rawatina nag appareil yu bees yii nga xamante ni lépp ngi ci tey boo mënul jàng alquran taal ko mu tooyal sa nga soog a génn loolu lay digal képp koo xamante ni xam nga luy valeur u alquran. te it ñu ci dolli mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam mos na wax Abaa Zarin na ko. yaa aba darin la an taadu fa taallama baaban min kitaabillahi taala xayrun lakka min an tusalla mi atraka ne ko aba darin baa xam nga ne nga xëy bis euh, ubbi téere bi yàlla subhanahu wa taala bi jàng ci benn bunt moo gën nga julli téeméeri raka del del ci ne wala an taadu fa taallama baaban min al xilmi xamila bihi awalam yaxmal xayrun lakka min an tusalla alfu rakka nee na ko te it nga xëy bis ubbi téere yàlla subhaanahu wa taala bi jàng ci benn bunt moo xam jëfe nga ko wala jëfee ko moo gën julli junniy rakka kon alquran noonu la foore noonu la màggee te it Sëriñ Tuubaa doon wax naan wa man aradal qurba min mawlaahu fal yaqra il qur'ana la inshaahu bu fekkente ne da ngaa bëgg a jege yàlla suñu borom subhaanahu wa del saxal di jàng alquran kon loolu alxuraan lu ama am solo la donte nit ki benn saar la mën sax saabu xëyee war na ko jàng ndax màggaayam ak fooram téere bi moo doy noonu jërëjëf Serigne Cheikh ba tey rek uh, dañ lay jaajëfal bu baax baax baax waxtaan bi def naa tamit daara ji am na ay yi muy waajal uh, buñ ci mënee laa biire rek incha allah ñu mën cee waaw xam nga daara ji moom soxna Walimata wax na lépp lépp sell na te te noonu rek la duñ ci jaaraat daaray alquran la seentuuñu ci lu dul payu yàlla jamono boo xamante ni weeru koor ñëw na adduna bi ñooy daje fii fees fi del ah mosuñu ko raxe ak dara nag leneen bokk ci lu dul xëy rek di jàng alxuraan rek di di di zikkar tarixa yëpp nag teew fi ku ci nekk nag la nga xam ne dañ dañ ko baaxoo ñu bàkk sa junjung wax say may fii lay amee loolu mu ngi am ci weeru koor incha allah jàpp naa ni daal ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru mai ca la loolu war a xew incha allah yàlla dogal it daara ji dafa am ay cellule fii ñu toll dimanche ci kantunu yàlla ñun ñëpp daara jëpp ñu ngi jëm grand théâtre lan la ñuy waxtaanee dañuy waxtaanee suñu digganteeg suñu boroom ñun ni ñu war a taxawee ci ndigalu yàlla ni ñu war a moytoo tere yàlla yi loolu mooy sababu waxtaan wi nga xam ni yéene nañ ko pour def ko dimaas bi di ñëw bale may tëj sama wax nag maa ngi sant yàlla bu baax di la wax ne nit ku ne la mu bëgg war nañoo gëstu lu tax mu bëgg ko kon nag ñun lii ñu bëgg dañ ci gis njariñ moo tax gisuñu dara lu dul yàlla gisuñu dara lu dul téereem bii ku ànd ak ñun rek àndal ak ñun ci lii ndax ñun regg nañu ba pare alhamdulilahi rabbil alamin gis nga ci sa laaj bi weesu xam nga ni benn ilimaan dafa def di jiite gox bi rek moom waxtu yi nga xam ne dañ koy biral yëpp buy jàng ixlaas rek ginnaaw faati moom lay jàng ah ñi mu jiite nag dal di koy jàmbat dem ci yonent bi alayhi salaam ne ñun suñu imaam bii moom dafa mel ni ixlaas rek la am man ndax euh, géewe timis ak fajar yépp moom bu ñuy jiitee lixlaas rek muy saar wu gàtt wow lay jàng yonent bi ree dal di koy wolu ne ko waaw xanaa yow ci alxuraan ji yàlla wàcc téeméeri saar ak fukki saar ak ñeent xanaa yow lixlaas rek nga man mu dal di ree ne ko sang baqara ba naas yi sama borom def na ko ci sama dënn mu ne ko waaw lu tax ngay jàngal lixlaas rek ci rakk rakib mu ne yàlla dafa dogal ma soppa lixlaas yonent bi jël loxoom ba dóor ko ci mbagg ma nekk yaak ixlaas ba àjjana macha allah na solo kon nag mbokk yi ñu ngi yem foofu di ñaan yàlla sunu boroom yàlla na yàlla wàcc balke alxuraan ci suñu kaw yàlla na ko yàlla wàcc ci suñu kaw e, yéen waa TFM religion noo ngi ñaan seen yéene yàlla na ko yàlla mottali te gis ngeen lii su amee su ngeen ci saxee mooy ndénkaane diine ji law ci réew mi dama wax ni am nañu sens pour ndono yi fi mag ñi bàyyi woon ñu téye ko te maa ngi dénk sama bopp di dénk mbooleem koyu koo xam ne doomu soxna nga ci réew mi na nga góorgóorlu ba aar sa yi maam ndax mag ñi fawuñu woon dara rëyul woon ci seen bët lu dul diine yàlla ji kon nag ñun bu àdduna bu nu àdduna ndax mukk ba tax ñu fooy sunu ndone lii wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf Serigne Cheikh Mbacke Laye yow it ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax a baax ci waxtaan wu am solo woowu ndax it bu la neexoon mën nga ñëw rek toog yabal ñu koy def ndax sa maam liggéey na ko waaye it ànd nga ko ñun na ko war a àndee ñun ko ñu ngi leen di ñaanal fa ngeen bëgg daara ji egg fa yàlla suñu borom àggale fa ci daraja alquran ah, di sant nag bu baax a baax a baax ñi fi yëpp suñu yaay yeeg wax dëgg yàlla dañoo kontaan ci yéen ndax ni toll nañ ñi ngeen toll pare lay teg sa kaw jàgg kon yéen dégg ngeen loolu bu baax a baax ñi ngi leen ñaanal nag yàlla suñu may leen barkeb alxuraan wàcce ko ci seen i waaye wàcce ko ci seen sët di jaajëfal bu baax yéen ñi nga euh, euh, xam ne wax dëgg yàlla moo waral lii lépp ndax jàpp na ci ba affaire yi jàppandal kon ñu koy ñaanal yokk ak wér di ko ñaanal mboolem jullit euh, di jox dig daje incha allahu taala beneen vendredi waaye ci 17h30 laata loolu nag jotaay bi dafa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 وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعلكم من الشجر الأحضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم ؟ بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون